ñu àndi si ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf soxna Ndeye Boussa Diatara mi ngi ci xët mu njëkk Soleil national mooy xale bu jigéen bi gàñe keroog raaye bu ñu tegoon jëm ci tarib alxuraanul karim ca daaru ñaaxeen fekk baax di jàngee cib daara bu nekk ca Touba yéenekaay bi tegal ñu ci ne fukki xale ak juróom la ñu woon jóge woon ci juróom-ñaari réew yu nekk ci àdduna bi muy première édition grand prix Macky Sall jëm ci tari alxuraanul karim keroog samedi la woon ca jam ñaaju ministère éducation nationale moo ko organisé woon Sénégal jël place bu njëkk bi ak soxna Ndeye Boussa Diatara Côte d'Ivoire topp ci Nigeria topp ci ki jël première place bi am na ñaar fukki million ñaareel bi am fukki million ñetteel ba am juróomi million yeneen candidat yi dem final ku ci nekk ci ñoom am na ñaari million lépp lépp di juróom fukki million ak juróom-ñeent ñu leen séddale ki ko def di njiit réew mi Macky Sall Vox Populi nee nañu diggante 2012 ak léegi dugal na ci daara lu mat ñaar fukki milliards ak juróom Walf Quotidien nañu concours international récital Coran doomu Sénégal bii nañu président Macky Sall na këllug ndongo yi Direct News ne ko boole cekkit di sargal ñi séq daara an ci bëccëgu ni mel dorog beeg ni mu mel ci réew mi fan yi jéggi na dayo l'observateur mi ngi ñuy xibaar yeneen ñetti tonni dorog yu marine nationale jàppati ci géejug Sénégal enquête dina kay nañu keroog alxames si la ko jàpp mu toll ci ñetti tonni cocaïne Le Quotidien nañu marine bi caaxaanul ci benn bato bu ñu naan Enten Faye ca la ko jàppe juróom ñaari membre yowoon ci équipage bato ba teg nañu leen loxo ba jamono ji ñoo ngi cib garde à vue ci boo xam ne boo boolee xay ma njëg gi dana toll ci ñaari téeméeri milliards ak juróom fukk ak ñaar 252 milliards dina kay jëlaat kàddu gi ba dañu xibaar ne am na ci ndakaaru benn marabu benn musicien ak benn sapeur boo xam ne force de défense et de sécurité yi ci réew mi teg nañu leen gët ci wàllu trafic cocaïne cib enquête bopp moom anki dina kay def na ko la mu ca gis mooy fii ci Sénégal politiciens yi musiciens yi ak mannequins yi ñoo fi dàq consommer dorog ginnaaw mi mbir meneen mu mu njëkk Sud Quotidien Amadou jël na yoon wa Macky Sall jëloon waa parti socialiste ak waa AFP investir nañ ko keroog moom Amadou Ba candidat bu Benno Bokk Yaakaar bi Vox Populi dolli ñu ci ne parti socialiste ak AFP jox nañu Amadou Ba drapeau bi moom moomee ñu jox drapeau bi di Amadou Ba candidat bu Benno Bokk Yaakaar ni ko waa AFP ak waa parti socialiste investir journal bés bi le jour li mu ci gis mooy investissement sur Amadou Ba le mandat bind ne congrès d'investiture bu parti socialiste bi fukki union régionale ak ñeent ak yi jox nañu bopp Amadou Ba soit sur continuité ak investir ko moom Amadou Ba journal L'Info ne nañu ñooy waa alsar di waa Racine Sy ak i ñoñam moom borom mouvement alsar di Mamadou Racine Sy di ñu wax ci xët mu njëkk lii quotidien ne Amadou Ba mooy suñu candidat te dañu koy assumer candidat beneen bu aw ñoñam investir keroog samedi la si ne nañu mooy Bougane Gueye Dany borom gëm sa bopp journal Tribune di ko dëggal ba dolli ñu ci ne Bougane Gueye Dany teg na yoon yu mu bëgg a jaar bu faloo ngir soppi xar kanamu Sénégal moom Tribune mi ngi ñu yegget unité di bennoog booloo gi Saliou Samb président conseil départemental bu Mbour woote yéene kay bi nañu ci final capital ODCAV bu mbuur gi ñu ko parrainé woon fa la ay kàddoom di sàkku ci famille Benno Bokk Yaakaar gi yëpp ñu booloo ngir fal Amadou Ba ci élection présidentielle yi ci premier tour ba turu Bassirou Diomaye Faye ak jëmmam ci xët mu njëkk source wa yéenekaay bi bind na plan B ba ma ngay dox ndax Bassirou Diomaye Faye déposé na caution en toute discrétion ca CDC njiital CDC di Cheikh Issa Sall ci Soleil national yéenekaay bi dañu xamal ne jamono ji li yi 2024 yi élection yi 2024 yi Pape Modou Fall de l'emploi nee na mënee su koo bañ ci xët mu njëkk public yéen a ci la ko waxee Ousmane Sonko mi justice nee na ko dugalaat ci liste électorale yi Pape Modou Fall nee na fi mbir toll mënee suta dugalaat kenn ci liste électorale yi te tàmbaliwaatoo lépp à zéro bi nañu reporté élection gi fi Boubacar Camara waxoon Souleymane Jules Diop wax ko Pape mu njëkk l'observateur moom de l'emploi ubbil yéenekaay bi nee nañu at mu yàlla sàkk lu ëpp ñaari téeméeri junniy jeunes ñooy yegsi ci marché du travail nee na taux de bi tolloon ci ci gi wàññeeku na ba ci 18 virgule ci deuxième bu benn doomu Sénégal bu nekk ci jafe-jafe ci réewum France mi ci journalisé ko Cheikh AB Faye la tudd yéenekaay bi nañu ma nga ñu tëj kaso ca France ndaw sum doon génnal doon bëggante ak moom ñu naan ko Mélodie Mendes da Silva moom la ñu waa ji ne da koo marché ñu koy wër ginnaaw bi ci la ñu gis ne dafa faatu te doomu Sénégal bi mu doon génne la ñuy tuumaal ne moo ko faat. Electronic Corp, partenaire des grandes marques, vous a offert votre revue de presse.